jërë ngeen jëf mbokk yi topp seen site internet rafati bi juróom waxtu ci ngoon jot na ñu dikk ak yéen ci li fi gën a fees ci boppu xibaar yi. dañu koy doore ak wàllum wér-gu-yaram hôpital boobu commune bu Touba doon taxawal ci at yee passé ci diwaanu Daaru Karim dinañ ci dikk ak yéen ci biir xibaar yi kuréel gii jóg ngir. ànd ak woy takk déer yi ngir jàppale leen seen wàllum sécurité ci biir Touba kenn ci ñoom wax na ci sunu micro dinañ leen déglu ci biir xibaar yi ginnaaw loolu jaay jënd ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllum jaayum frigo yebaloon nañ fa sunu ay ndaw yëkkati woon nañ ay kàddu jëmale ko ci seen wàllum liggéey boobee kon nag mbokk yi boo leen taaxeetloo tuuti ñu faram fàccee leen li fi gën a fes ci boppu xibaar yi comme ni ñu ko waxee woon ci ndorteel xibaar yi rek muy hôpital bu Daarul Karim di daloo tey jii ci teewaayu monsieur maire bu Touba muy Abdou Lahad Ka yeneen ay kilifa hôpital boobu nag waa commune bu Touba ñu ngi ko doon liggéey ci at yi passé yebaloon nañ fa sunu ay ndaw dañu leen di taaxeerloo ci micro Sini Touré. ñun waa secteur de santé incha allah liñ ci fas yéene def mooy incha allah bu màggal bi jàllee rek dañuy daal jublu ci liggéey bi. notamment l'affectation du personnel qualifié qu'on va ins installer ñu mun a tàmbali liggéey bi pour plusieurs raisons déjà on se réjouit du fait que la mairie de Touba a accepté les conseils qu'on les a prodigués depuis des années nga xam ne installation sant euh, poste de santé bi nangu nañ ko tabax nañ ko ñun nuñ ko bëggee juste pour manifester en tout cas notre engagement à œuvrer dans le sens de gérer ces structures dans les normes nga xam ne ce sera au bien et au service de la population de Darou Karim nga xam ne rien qu'en venant ici on a trouvé nécessaire et judicieux que ñu mën fi def benn centre de santé wala poste de santé boo xam ne ça va desservir la population de Darou Karim yelloo nañ ko vu vraiment le contexte ginnaaw wàllum wér-gu-yaram dañuy ñëw fii ci dëkk bu sell bi di Touba muy wàllum sécurité ndax ñu ngi waajal màggalug Touba ay fan yu néew dox sunu digganteeg moom ba tax na am na kuréel gu jóg ngir jàppale way takk der yi seen liggéey rawatina nag ci wàllu dem beeg dikk bi ba tax na seen kuréel googu kenn ci ñoom yëkkati na ay kàddoom ci micro seeni Touré dañ koy taaxeerlu. comité de veille à l'alerte mooy li muy def mooy euh, fexe jàppale police ak gendarmerie ci li nga xam ne fépp foo xam ni euh, mooy. Touba ñu won leen gox goxaan yi ak mbedd yi foo mën a jóge ak foo mën a dem tey jii bu nit jóge woon Ndakaaru jëm daar Daara Jolof fan la war a mën a jaar teggi dëkk bi te xat dem Daara Jolof. ren moom màggal gi dana metti ci wàllu circulation foog mu metti parce que fii ñu waxee nii rek tàmbali na li ko waral mooy euh, dëkk bi mbedd yu mag yi nga xam da nga ci daan jaar yëpp di dem mbedd yëpp dafa dafa am ndox. yenn tëli yi am ndox yenn yi am ci yu yàqu te ñu ngi ci ñu ngi ci nawet màggal gi des bariwul dana xat loolu mooy waral fi ni ñi daan wàcc di jaar duñ fa jaar am na yoo xam ne danañ ko sëkk xaj na defar ko ba mu baax bu dee fu dëgër la baax na bu dee fu dëgër xam nga oto yi euh, nit mën na dugg fenn càng fa wala yu demee noonu te gan ñi ñëw duñu xam mbedd yi xaj na ñi fi dëkk di di di def transport danañ xam mbedd yi ñu war a jaar mais gan yi duñu xam fi ñu war a jaar moo tax gan ñi kuy ñëw mu bàyyi xel ni Euh, lu mu gën a mën a teggi dëkk ba dem fi mu dem bañ a xajal biir dëkk bi mooy gën a gën. li ma gis police taxawal ko ci ak li ma gis gendarmerie taxawal ko ci ah moom xam naa ni saafara dana ci am ndax première prioritaire mooy fexe ba dem beeg dikki bi yomb dem beeg dikki bi yomb te loolu ñoom xam naa ni lii secteur gendarmerie dana ci def ba def ci lu mu mënta lu mënta def police it lii secteur am dana ci def loo xam ni. dana ci def boobu def lu mu conte def loolu nag ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy terminé ànd ko autorités yi ba tëral seen plan de circulation ñun li ñu ci def rek mooy jàppale leen ba mbedd yeeg fépp fuñ mën a jaar xoolal leen ko ba mu leer lu leer naññ la boo ko defee jàppale leen tam ci avant màggal gi ak après màggal gi secteur bi wër jumaa ji yëpp fépp foo xam kër kilifa ne na fa ñu fexe bay jokkoo ñoom ba problème bu fa am ñu mën a dem regle ko à l'amiable te it ñoom ñu xam ni police ak gendarmerie dañ jog pour jàpp ci màggal gi pour doxal leen ndax ñun dong mënuñu dara màggal gi sans police gendarmerie circulation bi dara du dem waaw ñun dañuy liggéey ci wàllu renseignement li ñu am dafa bari mooy tey ji bu ñu demoon ba gis koo xam ne day jaay produit produits yu primé yoo xam date bi dafa jeex ñun dañ lay téye woo service commerce waaw daaw jàpp nañ fi ñoo xam nga màggal gi bu jub see day am ñoo xam produit yi ñu amoon date bi jeex meew miñ amoon ah boisson yi amoon meew yiñ amoon yëpp dat bi jeex wala sax ñu antidaté ko jël beneen date def ko ci di ko jaay ci dëkk bi ñu di ko naan xam nga loolu feebar la te loolu insécurité parce que man na ray nit dégg nga loolu dañ ciy xeex dañuy xeex tam ci ñi nga xam ne dañuy jaay yàpp wu baaxul yàpp woo xam ne ménguwul ak yoon ndax fii ci Touba man jàpp naa fi yàpp xaj jàpp nañ fi yàpp mbaam fii ci Touba ñoo xam ne dañ ko doon jaay fii Touba fii amoon na fi ñoo xam ne dañ leen jàpp ñoo xam ne dañoo rendi woon ay yooyu yëpp dañ koy bàyyi xel ñooñ tam dafa am ñu ko dénk ñun ñooñu la ñuy lëkkalool bu dee service d'élevage dañuy jokkoo ak ñi nga xam ne ñooy waa élevage mettre leen ko ñoom ñu def seeni rapport def seen i dossier jébbal yoon. ginnaaw wàllum sécurité ci kàddu yi Modou Diop Diaobé yooyu dañuy dem ci wàllum jënd ak njaay euh, ñi nga xamante ni si ñoo féete ci wàllum njaayum frigo ci jamono yi màggal ak Tuubaa gi euh, yebaloon nañ fa sunu ay ndaw ci leeral gi Sini ture jamono ji ñuy waajal màggal gi nekk ci waxtu tàngaay commerçant yi yëngatu ci njaayum frigo nekk fi ci Touba seen activité mi ngi dox. ndax client yi nga ñëw donte sax bari wuñu client yi wax dëgg yàlla ñi ngi ñëw ñi ngi def visite bi et tamit ku ñëw laaj la prix dina ñëwaat dëgg yàlla. waaw ah, ñun nag jënde nañ suñ bagage xam nañoo seer nag euh, tuuti ah, par rapport ak magal yi passé mais nag ñu ngi sant yàlla waaw ah, client yaa ngi ñëw ñii ñu ngi laajte ñii ñu ngi jënd mais suñ Bamba moo amul morom am nañ ci moom yaakaar ne bagage yi ñu ci am yëpp dina jeex ci magal gi incha allah. na si ñu fekk ko ci place am muy waxaale ak ay client mi ngi xam ne ne njëgg mu daan jaayee lay jaayee. non wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla parce que prix yi fi nekkoon rek moo fi nekk wax dëgg yàlla parce que tamit loolu lañ tàmmal suñu ay client moo tax ñoo tàmmal suñu ay client yenn prix yi ba pare ñu ñëwaat ñuy évoluer prix yi wax dëgg yàlla prix yi fi nekkoon ba léegi moo fi nekk. keneen kii di ab naataangoom am gis-gis yu wuute ak moom ci wàllum njëg yi. ah njëg ji xaw naa seer tuuti par rapport ak eh, yeneen magal yi paase. Ah, waaw que boo xoolee par rapport ak eh, dëkk dëkk bi fu mu toll. ak par rapport ak maladie feebar bi nga xam ne moo fi nekk ah, am na bagage xaw nañu jafe tuuti ba tax na ñu xaw a yokk bagage yi tuuti tuuti waa ah, mais nag ah, terewul nag ñu ngi góorgóorlu di jënd ay bagage di indi clients yi itam ñu ngi ñëw di jënd. moom mi li bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom seeraay frigo yi li ko waral mbas mi ci la. ah parce que ñi nga xam ne mun na mënoon nañoo dem Chine jënd ay bagage di kii peut-être. pour nga dem day xaw a am difficulté tuuti waaw xam nañ cee laal tuuti tuuti. frigo nag bokk na ci jumtukaay yu jëfandikoo jamono yu ne waaye rawatina ci jamono magal gi kon nag mbokk yi lii mooy li fi ruuse woon ci ay xibaar ñu ngi leen di jaajafal bu baax ci teewlu bi di jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon ci liggéey bi ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ba xibaar yi mën a yem bu ñu ngi leen di jaajafal bu baax di leen jox di dig daje suñu beneen jotaayu xibaar jërë ngeen jëf